ah ndegam tamit yàlla moom moo bind doomu aadama yàlla moo bind asamaan seeg suuf seeg lépp li nekk ci diggante bi mu xamal la ne man maa ko bind gëm ma man binduma la lu dul nga jamuma ma te ci jaamu boobu boobu ngay amee lépp li nga aajoo ci àddina li nga aajoo ci allaaxira yombal naa la ko gëm ma jaamu ma xanaa xamoon ne kan noonu. sofiyatu ban sofiyatu lu ñu. ah jabaru Abdou Thiam. Ah, moom moo fi ah est-ce que est-ce que woo nga ko. loo ko yónnee. ku koy woo man. ah ah xanaa boo ma kiiwee ah waaye déet man lu ma ci bokk man yaa ngi koy soog waa xam naa mi ngi waaj a fëgg il est neuf six xam naa dafa guddee wàcc rek wax dëgg yàlla man ko xam nga soo fiyatu nag man damay wax suma dëgg dëgg man suma jigéen la man damay wax suma dëgg ah. soo fiyatu jigéen la soo fiyatu muus dinaa la xamal loolu wax naa ko jëkkër ji sax ma ne ko hii ma ne ko saawaay ma ne ko soxna si dafa muus de hii de non bàyyil kuulal ci ma ne ko xale boobu ma ne ko xalee boobu macha allah dafa kuul de ah déet moom kay mu bokk ci ànd ak jëf gis nga ànd ak jëf man mi ci laa bokk dama cee dama cee mujjee dugg rek waaye man damaa bëgg a xam exactement ni mu demee waaye damaa nekk li laajte réunion gëj naa déglu réunion mais amul problème élection yi si waaw. for socialism and Manda jëf. African party. Mm. For socialism mm -hmm. and democracy. ci yàlla. That is And Jëf. est-ce que. That is the first party in Senegal to have the courage to have the Wolof name. Hmm. loolu am na solo. everybody had a complex of inferiority. Mm -hmm. towards the French. And Jëf came and say no. we Wolof. Hmm. we Wolof. you know, and we someone say you're not going to exist, we say we're going to exist. Hmm. Maybe clandestinity, we're going to be underground, but we're going exist. And we were publishing uh, newspaper mm -hmm. called Haribi, Haribi, the, the fight. Mm the fight. Huh? Mm -hmm. we were have enough meals. You know who gave us back then it was typewriter typewriter. Mm. Typewriter was it was no computer no nothing. Mm -hmm, time. Mm-hmm. And to duplicate the typewriter, mm. you needed Ronewo. Mm. Ronewo to duplicate. Mm-hmm. You know who gave us that? Mm. Saint Sheikh Mbakke Gaynde Fatma. Okay. He's the one who gave us the machine. Mm-hmm. Because he was so happy with what we were doing. alhamdulilah rabbil alamin. Cheikh Sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. wallaay wallaay wallaay wallaay. who gave us the rendezvous. I told mm-hmm. Sëñ Moustapha he did not know. I told him. Mm-hmm. And we were also encouraged by the actual Khalif, Sëñ Muntaxa. Mm-hmm. He was encouraging us back then. and he's still because he's uh, Dekoa, our chief, mm-hmm. is a talib of Sri Muntaha. Okay. So that is under Jif. What is landing doing? Landing mom ci lan la nekk moom. Landing out because. ah landing dem ba dem. yeah because you know you remember in 2007. Hi. 2007 we mm. were in the government with Abdullah Wade. We were allies. Mm-hmm. We're not the same party. But we allies mm-hmm. fought together mm-hmm. and defeated Abdul Diouf together. Mm-hmm. But Abdullah Wad happened to have the larger party. So he was then the president. But we have some ministerial departments we were leading. So election come again. Landing say we have to go contest. Uh, compete against Abdullah Wad. People say no. No. Right. We in the government, this is he's the leader of the government. Mm -hmm. it's government. Mm-hmm. would not defeat Abdullah Abdul Yuf. It mm-hmm. took all of us to put our effort to get. landing Dal, he said it was his time. Hanamon Bokul, wasn't he like? he wasn't part of the government. I PhD. Mm. PhD It means common sense and book sense. Mm-hmm. You have to have book sense and common sense. Mm-hmm. You have to have experience. Mm-hmm. And you have to read. Mm-hmm. all the different uh, in politics. What you don't like, you have to know all. Be fully prepared. Because politics is not a game for the faint heart. You know? So, that's why politics is landing. He wasn't put in politics. Mm. He wasn't a good leader. we told him, stop. Mm -hmm. He wanted to stop. ñu dem a dem ba affaire boobu jàll. Mm-hmm. big defeat. 2007 mm-hmm. léegi ñu dem ba ci kanam landing commencé ne moom xëy benn bis rek mu daq Decroix ne dàq naa Decroix. yow yow da ngaa moom parti bay bay dàq. da ne parce que yow yaa jiitu. dag ñoo moom ay xar nga jiite ñun ñun ay xar de ay nawre lañu ma ne ko man bi may dugg ànd jëf xamuma la li ma xamoon mooy li daal Sénégal metti na ma mm-hmm. ma gis ne am na ñu tudd ànd jëf ci loolu la ñu nekk mm-hmm. ma bokk ànd jëf mm-hmm. pour ànd ak ñoom pour ñu xeex li daal Sénégal mais ñëw ma ko jàppale la dama ñëw pour ñu ànd sama doole sa doole ak doole keneen ak keneen ñu xeex ñi fi nekk pour Sénégal moom boppam. Mhm. nga ne da ngay dàq Decroix te Decroix ñu def congrès fal ko fal la. Mhm. yow yaa def secrétaire la kii mu nekk adjoint mais dana laa fal fal ko yow faloo ko li la tànn muy congrès ba moom moo ko tànn. Mhm. loolu mënoo koo def du dem ñu daal def beneen congrès. woo ko. mu xam ne su ñëwee dañ koy dàq. ñëwul. ñu fal dëkkoon. Mm. yeneen mbir mi demee. dañoo defaat beneen congre dàq ko moom Landing parce que ñëwul. Mm. fal dëkkoon. mais man man parti bi man dëkkoon dafa mën a dàq ci parti bi falu mu di. dëgg dëgg. man mun ma ko dàq moom itamit ndax falu mu. ñëpp a ko falal ko boolal moo ko mën a dàq.